Amadou Ba nekkoon premier ministre fii ci diwaanu Sénégal nekkoon itam candidat malheureux ci élection présidentielle yu ñu génn jamono jile moom itam daan na àddu ah, ci li nga xamante ne moom lañu ñu duppee déclaration de politique générale bu Ousmane Sonko biile nga xamante ne ni ki démb ba tey jur na polémique fii ci diwaanu Sénégal gannaaw rek ba Ousmane Sonko taxawee ne nag du amal li nga xamante ne moom mooy biile déclaration de politique générale ah, fa nga xamante ne moom mooy ci diwaanu assemblée nationale bu fekkee ah, soppuñu nañu li nga xamante ni moom mooy règlement intérieur bu assemblée nationale loole nag jamono jiile Amadou Ba daan na ci àddu la muy ñaax Ousmane Sonko mooy nag mu amal bile déclaration de politique générale ndaxte nag na ne lu wax la gannaaw rek moom moomee nga xamante ne am na expérience bu baax a baax ca mbir ma ndax li ni mel nekk na loo xamante ne jot na cee jaar janoona ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy parlementaire ya fare ca pencum ndaw réew ma ngir nag amal bile déclaration de politique générale jamono jiile dafa bëgg nag Ousmane Sonko respecté ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu institution jox gëdd kër googee nga xamante ne moom mooy assemblée nationale jëfee li nga xamante ne moom la article cinquante cinq daal di wax ca mbir moomee la mu jàpp ba tey mooy Ousmane Sonko li nga xamante ne moom mooy def déclaration de politique générale boobee ci assemblée nationale nekk na loo xamante ne lu war la waaye nag dafa nekk loo xamante ne daf ko war a def ngir wàccoog askan bu a Sénégal loolee ba tey nekk ab tradition boo xamante ne dañu ko war a wéyal euh, fii ci duwaanu Sénégal kenn nag waru ko soppi ndaxte nag dafa nekk devoir bu sacré boo xamante ne war na képp koo xamante ne dañ la tabb nga nekk premier ministre euh, fii ci duwaanu Sénégal ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko war na mën a amal li ni ndaxte nag moom moomee di Amadou Ba ba ñu ko tabbee mu nekk premier ministre fii ci duwaanu Sénégal amaloon na bile déclaration de politique générale euh, sa ñetti weer ya nga xamante ne moom la ko mayoon ci ab délai ngir nag mu daal koy def daf ko nag respecté def ko ndaxte nag xam na ne loolee nag dafa nekk loo xamante ne tradition la te nag dañ ko war a wéyal fii ci diwaanu Sénégal Amadou Ba jàpp na ne nag li nga xamante ne moom mooy déclaration de politique générale boobee Ousmane Sonko daf ko war a def ngir nag gën a ñoñal li nga xamante ne moom mooy wàllum démocratie fii ci diwaanu Sénégal lu ko moy rek dina jur coow fii nga xamante ne moom mooy ci réew mi dafa war nag respecté jox gëdd ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy kilifa rawatina ña fare ca diwaanu assemblée nationale yi la kàddu nag Amadou Ba moo ko daal di yëkkati ngir tontu ki nga xamante ni moom mooy premier ministre bu Sénégal nekkit leader bu Pastef di Ousmane Sonko. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon teewlu ci réew mi TV loole nag moo fi yësandi woon ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen wax nag bu leen fàtte benn yoon abonné ci seen chaîne bi nga xamante ne moom mooy réew mi TV ngeen bës lii di cloche de notification bi ngeen nag jot bépp vidéo boo xamante ne réew mi TV daan na koy dugal daañu leen toppal lépp loo xamante ne dafay xibaar moo xam fii ci diwaanu Sénégal wala ca bitim réew sant nañu leen bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen jàngeen jëf